les soigner. donc comme ñu dem privé ko ñu dem public nañ fa nañ fa dem moyen. Hmm. nañ fa dem moyen. y a des y a des jéego ah temps yi côté palu bi mini euh, ñu ñuy oo ñu jox garabu palu ak test de palu gratuitement. comprendre li mu la wax. Hmm. ñoom bu ñu xamee ne le privé existe que le privé gère ni nga ko waxee presque la hmm. plupart des. des soins des soins des structures. mais le moyen yi ngeen di jox nañ ko yóbbu dans le privé l' essentiel c' est que le Sénégalais puisse profiter des politiques de santé qu'on a mis en place. mais privé yi tamit bon ay particuliers yuy liggéey la. waaw même bu ñuy liggéey man nga jox ma garab ah du du waa changer dara sama consultation. yow boo décidé ne que may fay quinze mille pour consultation au lieu d' aller à l'hôpital à cinq mille <laughs> mais léegi garab bii ma la war a jox au lieu ma bindal la ko nga di ko jëndi te état bi yor ah mu jox la ko pour yombalal ko ñuy faju d'accord te non loolu day day dindi lu bari sàcc du tam xam nga garab garabu gratuit yi sàcc du am ah, man gis naa benn boitu palu benn boitu tuberculose xam nga tuberculose c'est gratuit c'est gratuit oui benn boitu tuberculose buy jar 7000 francs dem nañu ci benn centre de santé di réunion pendant six mois la boîte la boîte était sur la table kenn jëlu ko <laughs> la boîte qui coûte 7000 francs normalement mm. bu ko bu ko état bi mayewulee mais là actuellement comme c'est gratuit cette boîte là est sur la table pendant six mois chaque jour bu ñuy réunion ñëw fekk boîte bi ci man waaye. parce que dafa gratuit kenn soxlawu ko. kenn du ko jaay. waay le plus grand moyen kon am na garab yu ñuy sàcc docteur damaa bëgg nga wax mu leer. docteur kenn du ko dugal kenn ko dugal. donc yow affaire sàcc gi kenn dootu ko dootu ko tudd. Mhm. ah affaire garab bu ñuy sàcc. mais amoon na scandale boo xamante ne feeñoon na ci réew mi ñi nga xamante mat. amoon na scandale ah, pour soigner parce que l' état warul calculer ne privé la wala du privé. Mhm. dafa war budget moo ne 15 millions. 15 millions Sénégal ñaati aspirine la soxla par an. muy dix milliards ñu génne dix milliards on a commencé sept cent ñaata génne milliards génne pour la santé cette donc euh, de tous les Sénégalais doit être ñu xam nag ndax dañ koy jaay wala duñ ko jaay. bu fekkee euh, bu ñu ko yóbboo hôpital muy amay rupture. mais nañu ne aller à tel dispensaire vous l'achetez ñu jox ko les centres de santé en tout ñu ne ku ñëw ci ñun bu ñu la bindalee da ngay jënd bu ñu ne noonu c'est gratuit da ngay gratuit tey lañ ma jox le test. pour ñuy ñëw personnel nag dama leen di fay kii def test bi dañ ko fay 1000 francs euh, par rapport bu nekkoon hôpital. Mm-hmm. parce que personnel boobu da nga koy fay pour mu tester. bu ñu ma joxee garabu palio aussi c' est garab bi dina gratuit mais poser la perfusion boobu dañ koy dañ koy am na prestation yoo xam ne c'est privé bu ñu ma bu ñu ma fayoon sama salaire nag samay salaire u personnel fay ma sama essence fay ma samay euh, courant mais à ce moment là on mais tant que fañ ma ko les prestations que je fais pour que sama personnel mën a dund pour ma fay leen kooku même bu ñu ma joxee ay produits gratuits dañ koy obligé. dañuy fay ci kaw. mais déjà au moins le Sénégalais va sentir que je suis sénégalais même si je suis dans le privé. Mmh. l'État sénégalais. à ouais. qui je donne mes impôts. un me doit un traitement de palu gratuit. je dois mmh. le trouver partout. dans le privé comme dans si le public dans un dispensaire je dois ouais. le trouver. bu ma demee dans un truc comme la tuberculose. tuberculose mmh. actuellement c'est gratuit partout. bu fekkee sa médecin daf lay suivre dans le privé da lay bindal bon nga dem dans un centre euh, dispensaire. Mhm. Euh, ñu jox la sa dotation mois bi yëpp. médecin bi di la suivre nga di ko jël bu mu jeex mu bindaata la beneen. so mhm. projet c' est des projets qui marchent Sénégal loolu moo jaaxal c' est que y a des mhm. mais <laughs> pour personne ne veut. duñ ko à grande échéance. docteur am na tam feneen fu ñuy gis problème mooy fu mel nii euh, si ñu amee euh, insuffisance rénale mm-hmm. parfois seen ay kit manqué te kit yooyu ku nekk xam na ni si vital pour euh, pour ñooñu ndax bu ñu deful jalis bi seen bakkan mi ngi ci xortu gerte am na ci ñoo xam ne ci loolu la ñu faatoo naka ngay expliquer yooyu situation man de bu ma doon def bu ma doon def jalis tey client di ma fay te ma war ko defal jalis fu produit jalis boobu nekk naa ko jëli mais parfois mu am rupture pharmacie nationale d'approvisionnement du ci du ci indi benn kii parfois day am problème ak ses fournisseurs dans le ministère de la santé qui est responsable de cette dialyse est-ce qu'il reçoit l'argent ñoom boo leen waxee ñu ne budget bi dafa jeex dañ leen joxoon budget wu parfois ñu war fay fournisseurs yi fay ñu leen ñooñu bañ leen approvisionné <laughs> yooyu yéen journaliste yi investigateur investigateur journaliste investigateur ngeen <laughs> investigateur leen ngeen xam fan la problème bi nekk mais mais mais dalal nañ fi ki nga xam ne moom moo moom moo moom moo jiite euh, comme moom ni mu ko waxee. ñi nga xamante ne ah. ki jiite la jëlis. waaw moom. mu ñëw les les les insuffisants rénaux voilà euh, moom ñëw ñëw na fi expliqué ñu jafejafe yi nga xam ne moom moom la ñu am par rapport au au soin mais euh, greffe bi nga xam ne jamono ji tàmbali nañ ko aussi voilà mu nekk loo xamante ne xëy na dana dana gën a baax dana améliorer mais coût bi itam. mais c'est mais bi kan la coût bi à matériel bi ngay jënd. boo yoree budget de milliard nga war a sauver quelqu'un tey mu mën a toog ci rajo bi. mais loolu la ci a def. <laughs> yëpp yëpp la a def. pourquoi les subventionné ko à 100 pour cent. pourquoi les pays les autres pays le font. boo ko la sax léegi su yor xaalisam sax du mën am loolu laa la wax. waaw alors man tey am na am na ay journaux wala ay site yoo xam ne bu ma bu ma tàppee woon bulletin bulletin ut sama carte bancaire fay par internet avion bi ñëw midi daf may andil euh, samay kit. ay kit yi ngeen wax ni c'est c'est tout léger c'est ça peut venir par avion en dix minutes kooku boo demee ci site bi ñuy wax euh, san faire la publicité sax Alibaba boo tapé kit euh, kit de dialyse dañ lay wax ne ça coûte même pas trois euros trois six euros lay jar kit de dialyse mu ngi jar six euros six euros mooy àggul trois mille di cinq euros mooy trois mille defe naa dix mooy six mille hmm. boo tapé léegi nga am système de paiement par xaw ma internet les cartes bancaires la euh, am nay transporteur par avion. dañu la koy indil sa kon kon docteur dans d'accord léegi la aussi a fait des sur les produits médicaux je pense que on ne paye pas grand donc man un directeur d'hôpital lu mu manqué manqué xaalis budget bi amul mais am na coton boo waroon a jënd fii te nga ëppale ko jëlal ci coton bi nga dem jënd produit de dialyse en tan nga sauver nit ñi bon parce que gérer quand même via la loi mais quand même am na benn liberté d'action bu ñu lay may benn marge de manœuvre. benn marge de manœuvre. mais boo gisee xaw ma battre yi ak. Hmm. nomination yi ñu ne tudd nañ la tudd nañ la soirée. Euh, docteur docteur docteur justement. justement docteur alors Sénégal yi lu ngeen bëgg ñun Sénégal ñoo war a xool lu ñu ah. bëgg. ñu xam. mais tey boo demee tey soirée nangam nga dépensé fa xaw euh, ñu ne la une soirée de Youssou Ndour a deux cent millions. Mm-hmm. Euh, mais kooku ça veut Sénégal y a vraiment. dëgg la on a les on a les mm-hmm. est-ce que idée yi moo ñu manqué ou est-ce que la conviction moo ñu manqué ou est-ce que la détermination. mais un pays pour qu'il soit fort il faut que tout le monde soit fort. Mm-hmm, déedéet. docteur. Euh, suñ doon diagnostiqué tey secteur santé bu Sénégal saa yi ñu voté budget c'est c'est des milliards euh, euh, yoo xam ne dañ koy dañ koy dégg quatre cent cinquante milliards yu bëri en tout cas des centaines <laughs> alors suñu ñëwee ba ci diggu gestion ñuy am ay problème kit ñu naan ñu souvent fayu ñu euh, les fournisseurs mm-hmm. dañu am problème approvisionnement mm-hmm. parce que déggowuñu ak mm-hmm. yeneen i jafe-jafe yoo xam ni dafay teg bakkanu nit ñi ci xottu gerte est-ce que mun nañu jàpp à la fin de ce diagnostic là que amul transparence dans la gestion peut-être de de l'argent bi nga xam ne jagleel responsabilité la responsable bu ñu la joxee loo xam ne moo yor euh, dundu nit. Mm-hmm. nga def ko ci xottu gerte di ko <laughs> di ko di ko <laughs> di ko caaxaane. kooku kooku mën na xamu ban qualification lañ ko mën a. Mm-hmm. c'est c'est presque un crime c'est plus qu'un crime. c'est plus qu'un crime. d'accord. te bi may ñëw fii rek maa ngi raw ba centre ñuy wax ne euh, on doit tenir compte de tout enfant bu ñu bëggee dellu ci affaire euh, pouponnière yi. Mm. devant chez vous la xam ne benn centre social la bu nekk fii xamu la mm. boo xam ne dañu ne tout. <laughs> on doit tenir compte de tout enfant qui vit. Mm. xoolal li xew ci pouponnière yi. ñooñu fu ñu nekkoon. ministère de social fu ñu nekkoon. ministère de la femme fu ñu nekkoon. centre de premier accueil bi nekk fii. Ah. ci Liberté 6. <laughs> Liberté 6 c'est Ouais. Hein? Tout en fin compte, ça veut dire tout Sénégalais. Depuis sa naissance jusqu'à la fin, on doit, le, on doit le prendre en charge. mais bu ñu déggee ne xale yi souffrir nañu dans un dans une pouponnière personnelle boo xam ne kooku yorul woon les moyens. donc kooku il fallait prendre un pédiatre ak pédiatre c'est 10 000 francs la vacation horaire. pendant une heure un médecin peut travailler une heure. naa bul 30 000 boo ko payee 30 000. pendant une heure il va te voir alors deux cent soixante onze milliards de budget pour une population de dix huit millions presque de de de personnes. est ah. que est que est que doy na tamit. Ah, parfois dañuy wax ne. bon nee naa ne ëpp na bu ñu milliards yooyu divisé ko par quinze millions de personnes ku nekk ñaata lay am ci compte ku nekk dana am compte bancaire déjà. man dafa dañ système de d' administration. bi problème moyen. parce que système d' administration oui. xam li gën a bon c'est même dans la santé on l'a vu. les IPM mm. wala les assurances. Mm. c'est que balaa ñuy faj nit ñoom dañuy lekk déjà. la moitié la moitié tout est fonctionnement presque oui. donc moo pays pauvres comme ça ñu xam l'administration nous coûte cher. Mm. est-ce qu'on devait pas réduire l'administration au minimum surtout que le Covid jàngal nañu ko. Mm-hmm. le travail à distance. télétravail appareil sur ordinateur n'existe. Euh, les systèmes a mën naa ko jox 500000. sànqoon ah maa ngi xaar jox ma 500000. voilà non c'est 400000. ah kon faj wala faj bi 400000 bu ñu loolu joxee sa 400000. docteur rek sànni traag nee na sa 400000 zéro. la liste des électeurs existe. ñu ngi cay coow nii même ci. loolu de la liste de tous les sénégalais bu la neexoon nga yor ko tey. waay tey au lieu nga ne euh, kii fay retraité la toogal ci bureau nit ñi di rang. nga gis vieux yu 90 ans di rang di jël say ay xaalis. wala mm. ñu leen defal ay certificats médicaux ñu leen di kooku si si a bon. dématérialisé a fait des progrès ah dégg naa ci con ci kii bi daf ñu koy def léegi. ci amande yi. Mm. bu la gendarme jàppee léegi jaratul ngay dem. Euh, ah, waaw waaw ordinateur. am na effectivement par internet mu dem. Mm. bon espérons que loolu dina ñëw ñu appliquer à grande tous ces bureaux de xaw ma lan même impôt léegi gis nga léegi ñun dootuñu fay impôt ñun suñu compte numéro compte la ñuy joxe. Hmm. bu impôt bi jotee. ñu eh, dagg ko à la source directement amatul demal déclaré amatul di bon am na ay progrès yu ñëw mais nañu jël daal budget yooyu. deux cent hmm. soixante onze milliards soixante onze milliards yooyu. def naa tey ku nekk mën na jàngal doom dans une. <laughs> école publique sax jaratul même école privée lay am ñëpp di fayal seen doom. seen doom koy dégg rek waaye doo ko gis. waaw mais bon espérons euh, amul euh, ñàkk espoir euh, loolu bu <laughs> Jérôme <laughs> ah, loolu moo tax gars yi di xool changement bu kenn mm. dawalee pendant dix ans. Mm. gisuñu li ñu bëgg nañu béy keneen mais mais mais kon docteur ci li dégg li ma lay nga jàpp ne kon suñu xoolee bilan bi nga xam ne président Macky Sall def na ko ci ci ci santé lu ci bari def cee sooxe. du soo xel parce que mm. médecin yi débrouillé tey ba mën a defar euh, kii greffe euh, greffe rénale <laughs> euh, voilà donc am na quand yoo xam ne bon jéego bi tamit si ñun médecin lay jóge mm. man tey bu ma corona utilisé su waxee woon. ma bu ma intéressé woon tey ma bàyyi li may def yëpp. Mm. dugg ci waaw d'ici dix ans ma génne leen loo xam ne dina dimbale waa Sénégal li fi corona bàyyi. Mm. mais nag financement boobu nag may bàyyi sama liggéey di bàyyi li may lekk. foog état ah, jàpp ma lu may lekk te kenn fayu ma les recherche bi mooy problème. Mm. Hmm, si on finançait bien les recherches. et on dit à des médecins bàyyi leen li ngeen def kaay leen si euh, nu ñuy fajee li yàq lii. on aurait trouvé des qui est maintenant le CERGOP ah soo léegi ay dons hmm. la ñu même en Europe dañu def fait les pour le cancer c'est que la recherche sur le cancer même est devenue privée boo joxewulee xaalis doo mën a avancer moo tax association de cancer yi ngeen dégg hmm. LISCA bi ñuy dégg au Sénégal donc muy noonu mais boobu noonu euh, waa gouvernement moo ko waroon a jël uh-huh. gouvernement waroon jël ay gynécologue